jërë ngeen jëf mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañu jóge te ci yàlla lañuy dellu mbokk yi ñoo ngi jaale Sénégal gépp di jaale monde entier di jaale waa bitim réew sunu ndey ju baax di ñàkk di ajaratu ndey Fatou Kiné nu Diatta mbokk mbokki nag ñu yëgal leen ni suba incha allahu rabbi lañu koy jébbal boromam di h 30 fii ci armeer bu yoof kon nag ñu bëgg képp koo xam ne bëgg nga fekkee denc bi 17h pile na la fekk ci Albert bu Yoff bu ñu fa jógee li jëm ci sarax si lépp moom mi nga xam ne tey moom la ñuy jébbal boromam duñu ko war a ci kàddu duñu ko war ci jëf duñu ko war ci xel lam bëggoon dégg ko ak njabootam moom lañu ñu koy defaral mooy gannaaw buñ ko jébbalee boromam lépp ñu yemale ko ci bis bi kon jàpp leen ni troisième jour amul huitième jour amul quarantième jour amul lépp danañu ko yemale suba ci bisub àllarba ji incha allah bu ñu ko dencee 17h30 ba noppi ba 18h ku bëgg a jaale ji demal nga jaale ji kër papa Thione Seck fi nga xam ni fara mama jaa nga dëkkoon ak njabootam nga joxe sa jaal nga jaale boo noppee nga yeewee ko lépp ci bisub suba lay yem incha allahu rabbi ñu ñaan nag suñu mbokk journaliste yi suñu mbokk influenceurs yi ne ñëpp yem ci almeer bu yoof bu kenn dem aéroport loolu mooy ndigal li te loolu mooy bëgg-bëgg bi na ñëpp yem ci almeer bu yoof ak ci sarax si bu kenn dem aéroport ngir yàlla ñu ngi leen koy ñaan jërë ngeen def